maam cheikh anta mbàkke maam cheikh anta mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1866 ci dëkk boobu di poroxaan ginnaaw bu mu feeñee jamono ci atum 1866 ci dëkk boobu di poroxaan di maam cheikh anta mbàkke waajuram di mamor anta sali mbàkke mi ngi ko tudde naar bu ñuy wax mohammed ibnu abibullah sidi al muxtaar moom la tudde maam cheikh anta mbàkke mi doomu soxna asta waalo mbàkke la ak maam mor anta sali mbàkke moom maam cheikh anta mbàkke waajuramu jigéen wi di soxna asta mbàkke ñu ngi ko gën xamee ci soxna soxna anta njaay mbàkke am na nag ñum bokkal soxna asta mbàkke mi moom maam cheikh anta mbàkke boroom dërëm ak ngërëm ñu mën cee ràññee taawu soxna anta njaay mbàkke ba di sëriñ mbàkke anta mbàkke ibnu soxna anta njaay ibnu ak ku ñuy wax soxna maam faati mbàkke bintu soxna anta njaay mbàkke bintu mamor anta sali mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ aafiya mbàkke ibnu soxna anta njaay mbàkke ibnu mamor anta sali mbàkke ak mamor anta sali mbàkke faye woon waajuram wu jigéen wa di soxna anta sali kan muy soxna anta sali mbàkke bintu soxna anta njaay mbàkke bintu mamor anta sali mbàkke ak moom maam cheikh anta mbàkke ibnu soxna anta njaay mbàkke ibnu mamor anta sali mbàkke kon ñeent la bokkal waajuru jigéen ak moom muy juróom muy ñaar ñu góor ak ñett ñu jigéen bi matee dal alxuraanul karim moom maam cheikh anta mbàkke boroom dërëm ak ngërëm waajuram di mamor anta sali mbàkke moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw waajuram nag faboon na ko moom magam maam ceerno ibrahima faati mbàkke sëriñ ñang sëriñ ñang moom nag yoroon na maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ak maam Cheikh Anta Mbàkke mi waaye nag yàgguñu nag ci loxoy sëriñ ñang ñu jóge fa maam Anta Sali Mbàkke mi waajuru maam Cheikh Anta Mbàkke jël maam nag yébbal ko ku ñuy wax sëriñ Moor Sekk ci dëkk bu ñuy wax leen ci loxoy sëriñ Moor Sekk moom nag la maam seex Anta Mbàkke nag nekk nag ci wàllu jàngum alxuraan waaye nag mokkaliwu fa nag lii di alxuraan ginnaaw bi nag la ko waajuróom jël maam Moor Anta Sali Mbàkke jébbal ko nag sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo mu wéy abdourahman loo ba ni mokkale alxuraanul karim moom maam cheikh anta mbàkke bi matee jàng nag lii di xam-xam magam mammoor jaara lañ ko jébbal mammoor jaara nag moo ko jàngal nag lii di xam-xam ginnaaw bu mu jàngee xam-xam ci loxoy magam mammoor jaara la delsiwaat nag ci loxoy magam xaadim rasul booba nag tombeeg nag waajuram wa di mammoor anta sali mbàkke nag génn nag lii di àdduna mu jàppe xaadim rasul nag comme waajur def ko itam mag topp itam ci ginnaawam nag ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor mu wéy nag nekk ak magam nag di ko xoole mammoor i magam nag taxawalee nag lii di yoonu murit nag ci atum 1883 mu wéy nag ànd ak magam nag ci bëgg-bëggu magam boobu nag ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi koo mbàkke kajoor ñëw nag ci dëkk bu sell bii di mbàkke bawal ginnaaw mbàkke bawal nag daaru salaam ginnaaw daaru salaam nag tuubaa bi sëriñ tuubaa seexul xaddim nag taxawalee dëkk bii nag di tuubaa la fa dëkk boobu nag di daaru salaam nag jagleel ko maam cheikh anta mbàkke ak ñu baree baree bari nag ci ma ñi dëkk boobu nag di daaru salaam bi ko magam Mbàkke ci teewaayu sëriñ ndaam Abdourahmane Lo la ndax soo delloo ci marché bi Cheikh Moussa Ka defal sëriñ ndaam Abdourahmane Lo ma ngay wax nag ci biir marché ba bis bi sëriñ Touba Seexul Xaddiim jébbaloon Daaru Salaam maam Cheikh Anta Mbàkke ma ngay wax fan ya ak weer wa ci biir marché ya ba maam seex Anta Mbàkke bokk nag ci kilifa yoonu murid tim nag yi njëkk am ab dëkk nag ndax magam Xaadim Rasuul moo ko jébbal dëkku boppam bokki tim nag ci kilifa yoonu murid itim nag yi njëkk a cheikh ci yoon wi maam Cheikh Anta Mbàkke la Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim njëkk a toftal mbooloo boole kooki tim jox ko dëkk ba tax ne li ñu tudde ak cheikh ci yoonu murit itam maam Cheikh Anta Mbàkke mooy ki ko njëkk def njëkk a cheikh mu njëkk a ci yoonu murit tax na li ñu tudde ak cheikh nag ci yoonu murit turu maam Cheikh Anta Mbàkke woowu mooy li ko waral ndax comme moom la Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim njëkk a cheexal keneen kum deflaatoon nag loolu mu defaloon maam Cheikh Anta moo tax nag ñu daa wax ne la Cheikh Anta amoon diw itam am na ko te comme cheikh gi nag amul aw tur ñu koy adressé maam Cheikh Anta Mbàkke nag mi ko njëkk am ñaare na ku ñu masaa seexal ñu wax ne am na nag la cheikh amoon wala defal nañ ko lañ defaloon cheikh xam naa ne nag baatub olof la boo xam ne ni dégg nag li wax danañ gën a mën a jàppale nag ci wax ji ba dégg nag gën koo mën a comprendre ne nit bu njëkkee am dara loolu mu am kenn xamul nu mu tudd su ko keneen amaatee nag daa nañ wax na nag la diw am diw am na ko loolu moo waral comme maam cheikh anta nag njëkk a ku masaa cheikhaat ñu ne defal nañ ko lañ defaloon cheikh anta daaru salaam nag di liggéey lu mu am nag yit magam xaadim rasul ba ni magam bàyyikoo nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba dem Mbàkke Baari Jolof ginnaaw Mbàkke Baari Jolof nag la ko baax ki Sëriñ Touba Seexul Xaddim nag dem ci géej gi bi Sëriñ Touba Seexul Xaddim nag di dem ci géej gi rakkam ji di maam Cheikh Anta Mbàkke nag mi ngi ci dëkk bii nag Sëriñ Touba Seexul Xaddim goroon nag féetale ko fa di daaru salaam daaru salaam googu nag la toog nag ba ni magam ja xaadim rasul nag ñibbisee ci géej gi ci fukki fan ak benn nag mois de novembre ba nag ci atum 1902 laataa magam ji nag xaadim rasul nag ñibbisi nag ci géej gi foofu mu nekkoon nag di gabon ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Lo fekki woon na xaadim rasul nag ci dëkk boobu nag di gabon ngir ziyaare ji ko ginnaaw bu fa sëriñ Mouhamadou Lo demee na xaadim rasul nag sàkku woon na ci moom ngir mu delsiwaat nag ci réew mi nag di Sénégal ngir woolsi ko nag rakkam jooju di maam Cheikh Anta Mbàkke ginnaaw bu sëriñ Mouhamadou Lo wéeye leen ndigalul xaadim rasul boobu ñëwaat na nag ci réew mi nag di Sénégal ci dëkk bi nag di Daaru Salaam ngir di wax maam Cheikh Anta Mbàkke di ko xamal ne sa mag ja xaadim rasul gis naa ko ma nag ci réew moomu nag di gabon waaye nee na nag nga fekk si ko nag ci réew moomu di Gabon sëriñ Mouhamadou Lo nag mujj na ànd ak maam Cheikh Anta ngir dem nag wan ko fan la xaadim rasul nekk nag ci Gabon keroog bi maam Cheikh Anta nag di dem di wuy ji magam jooju di xaadim rasul ku ñuy wax sëriñ Modou Ndiaye Diop la àndaloon ca yoon wa def na nag ab diir bu néew nag ci dëkk boobu nag di Gabon ci ndigalul magam nag di xaadim rasul ginnaaw bi nag la ko xaadim rasul yeewi nag ngir di ko wax ne nag mu delsiwaat nag ci réew mi nag di Sénégal toog xaar ko ndax léegi mu ñibbisi ginnaaw bu maam Cheikh Anta Mbacke nag delsiwaatee nag ci réew dafa nag des nag ci dëkk boobu mu nekkoon di daaru salaam ba ni xaadim rasuul wàcce ci waaxu ndakaaru yi ci fukki fan ak benn ci mois de novembre ci atum 1902 di juróom-ñeente fan nag ci weer wii nag di weeru Chaabaan ci atum 1320 nag ci gàddaay gi maam Cheikh Anta Mbàkke nag gisee naag màggam ja di xaadim rasuul waaye xaadim rasuul nag da doon sàkku ci moom nag di ko wax ne nag damay wéy toog daaru salaam danaa ñëw fekk si la fa noonee ko ko xaadim rasuul waxee nag maam Cheikh Anta na noonu nag fa séenee dellusiwaat nag dëkk bi nag di daaru salaam toog fi ba ni xaadim rasuul wàccee ndakaaru dem ndar géej lugaloo bari jàmm siise sànnoo si woore fa nag weeru koor gi ginnaaw sànnoo si na xaadim rasul jaar fi mu jaar ba nim dikkee nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam bi seexul xaddim wàccee nag ci waaxu ndakaar yi ci fukki fan ak benn ci mois de novembre ba nim ñëwee daaru salaam mi ngi toll ci ñaari weer ak fukki fan ak benn ndax juróom fan ci weeru shaxbaan ba ñaar fukki fan ci weeru korite ñaari weer la ak fukki fan ak benn la seexul xaddim nag def ci réew mi nag doog a ñëw nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam nag ci ngan nag gum mu amal nag ci rakkam ja ginnaaw nag bu xaadim rasool nag ñëwee ci rakkam jooju nag ci ak ngan ñaar fukki fan nag ci weeru korité nag la ngan nga tàmbali ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru korité keroog bi xaadim rasool jógee kër Mandumbe fasu njëlamu nag la war fas wa nag ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Maane nekkoon magitim ci xaadim rasool mooma moon fas wa xaadim rasool nag dimanche ci guddi nag la egsi nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam fas yéene fee amal nag lu ñu tudde ak ngan ci rakkam jooju nag di maam Cheikh Anta Mbàkke diirub juróom-ñetti fan yooyu xaadim rasool nag am nag ci dëkk boobu nag di daaru wasalaam lépp loo xam ne nii maam Cheikh Anta Mbacke bu ko defee dana nekk nag mbégte ci xaadim rasool wala ñi ànd ak xaadim rasool maam Cheikh Anta Mbacke def na ko moo xam ci wàllu bernde ak lu mu mën di doon ba mu gi sax maam Cheikh Anta Mbacke demoon na sax ba naroon a tër doomu aadama ngir faagaagal ko ngir lépp ngan gi matt ginnaaw bi nag la ko xaadim rasool mi magam yëkk di ko wax ne macha allah Cheikh Anta lépp mat na ngan nga nag soo delloo ci téere bi Cheikh Moussa Ka nga dellu ci Mbàkke ma ngi cay nettali ngan nga naka la ko maam Cheikh Anta Mbàkke doon doxale mi ngi wax ne bis bu set fukki nag ak juróom la maam Cheikh Anta Mbàkke doon tëral ak fukki bëy yi ak genn giléem ak lépp loo xam ne ni na rëbb nañ ko nag ci bis bi nag ngir jàpp ko ñu boole ko ca ci diiru juróom ñetti fan yi kon ngan nga ngan gu yéeme la xaalis bu baree bari nag la maam Cheikh Anta Mbàkke nag def nag ci magam jooju ci diiru juróom ñetti fan yooyu mu am ci daaru salaam doomu aadama boobu maam Cheikh Anta na faagaagal bi sub keroog ginnaaw bu ko xaadim rasool woowee di ko wax ne daal lépp jag diggante Mamor Jaara magi mag lañ mujj jébbal doomu aadama jooju di sëriñ As Kamara kon ci loxoy Mamor Jaara la mujj sëriñ As Kamara moom nag taalibeb sëriñ Cheikh Absa la woon sëriñ Cheikh Absa nag moom maam Cheikh Anta Mbàkke ñoo bokk Mamor Anta Sali Mbàkke ñu teewlu ci jasaawu sàkkoor fi Cheikh Moussa di waxee nganuk daaru salaam gi ma wax la bis ba sëñ Xu Bamba ñi bisee ba Konaakiri caam ak kësasi bisu dibe di nit di fante kore waa laggoonte guddi la ne jaar fanaani daaru salaam daaru salaam daaru salaam daaru salaam fakkat borom gaawaani réew mépp doomu rakku fii jaani xam fa xayak dun ngan nga raw tëbaski ngan nga wayoon naa ci sii dil mbàkke yaral ma marti yaa borom gaawaani loola ko fàttali meloo jinaani fukki nag ak juróom ci bis bu nekk ànd ak giléem ak fukki béy lay sàkk ba muy xayak ba siir na tey ma reen di nit koy taxaw jox tan ya ndax ñu man di daam ni ko jaaraama mu jàppaab jaam jébbal magam sëriñ ma mar borom saam nit ak juróom-ñetti ci weeru kore waa keroog daal ti ne la ànd ak fere yaa nit ak juróom-ñetti hurufi tuuba tuuba tuuba dajeeg bisab altine wóor na booba la seeku bamba wàcc daarul marnaan baay muusa ne boo keroog daaru salaam mooy ndaanaan keroog la dam fa naan si daarul marnaan maam janno faati boole ñam yaati naan ngan nga ma ne su koy xibaar ci duniya lu nekk am na ba bi xëyri sun moo tax tra ba baa nga daarul ma naan kenn du fa mar kenn a ngay naan tabax yaag baraaga daarul mar naan dana gëndoog Tuuba fu neex waay mu fanaan gili guddi ja di ko magala ba daa njër daraja ay wa wa sahbi wa man walaahu kon loolu la ci Cheikh Moussa wax nag ci xasida gii di Jazaawu Sakoor soo demee itam ci marsiya maam Cheikh Anta Mbàkke itam ma ngi fay waxaat histoire bii Sëriñ Tuuba Cheikhul Xadim nag bàyyi koo fa bisub ñaar fukki fan juróom ñett ñett nag ci weeru korite ngir fas yéene ñëw nag ci daaru marnaan ci rakkam jeyitam di maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo tax soo dégloo wayu da nga dégg Seex Musaa Ka ne ñitt yu teg juróom-ñett ñitt nag mooy ñaar fukk ci wolof juróom-ñett mooy juróom-ñetti fan ya nee na loolu sax moo méngoog tur wii nag di Tuubaa bis boobu nag la Xaadim Rasuul bàyyi ko daaru salaam fas yéene dellusiwaat nag wala fas yéene ñëw nag ci kër gii nag di daaru marnaan ci fi mu doon defarloo nag rakkam ja maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bi mu nekk ci géej gi nag na ko gor koo di daaru marnaan Sëriñ Tuubaa seexul xaddim nag am na fa ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru korite ba fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weeru gàmm ci dëkk boobu nag di daaru marnaan la ko def ñu xayma ko ci ñeenti weer ak ñaar fukki fan la def nag ci dëkk boobu nag di daaru marnaan ci ngan gum doon amal nag ci rakkam ja di maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru xanaa lu dul nag bi kërug daaru marnaan gi lakkee mu sancaat nag geneen kër kër ga nag moo nekkoon fii njabootuk soxna Jóob Mbàkke gi dëkkee di sëriñ seexu loo bu sëriñ ndaam Abdurahmaan loo ci daaru salaam ndaam foofu nag la am weer ak lu topp ñu sancaat nag kër gi keroog nag bi koy sancaat ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ ahmadu ndumbe xabbaan maam cheikh ibrahima fall lamp ak njaañ la joxoon nag liggéey bi ngir ñu defaraat kërug daaru marnaan gi ginnaaw bu ñetti góor yàlla yooyu nag defaraatee kërug daaru marnaan gi ba noppi nag sëriñ tubaa seexul xaddiim nag dafa bàyyi ko waat foofu dil si waat nag ci daaru marnaan maam cheikh anta nag ak kii di ibrahima fall la sasoon lépp loo xam ne nii a demaat ci kër googu cheikh ibrahima Fall Lamp defaroon ak kii di sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke ak Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ lépp nag lu fa war a dem nag ci wàllu matériel nag ñu def ko fa Cheikh Ibrahima Fall Lamp ak maam Cheikh Anta Mbàkke nag ñoo wuti woon nag ay lal ci dëkk bii nga xam ne nii moom mooy Ndar Géej lal yooyu nag ñu doon indi nag ci kërug Daaru Marnaan gi nag ngir defarewaat ko kër gi na ginnaaw bu kër gi lakkee lal yooyu nag ñu indiwaat coow lu yóbbu Seexul Xaddiim nag ci réew mi nag di gànnaar ndax Seexul Xaddiim kat bi muy jóge nag ci Gabon ci liberté provisoire rek lañ ko mayoon muy bàyyug loolu nag heure bu ko defaatee nag yoon nag day dalaat ci kawam ginnaaw bu ndawul ñaari góor yàlla yooyu nag yoree lal yi jóge ndar nag ba ñëw nag ci dëkk bu ñuy wax ngongo foofu nag lañ wàccee woon nag doon noppal nag giléem yi nga xam ne nii nag ci lañ sëfoon lal yi pël bii nag di demba ngari nag ginnaaw bu ko gisee la dem nag ci autorité yi di leen wax ne daal gis na nag seexul xaddim yor ay ngànnaay ngànnaay yooyu ñu tuumaal seexul xaddim nag moo yóbbuwaat seexul xaddim nag ci réew mi nag di gànnaar waaye nag ci diggante bi kilifa yi di waxtaan ak seexul xaddim ngir di ko laaj ba xam li mu yor ay ngànnaay la waaw wala déet enquête boobu nag kilifa yi doon def ci sëriñ tubaa seexul xaddim lu ëpp ci yónnii ni maam cheikh anta mbàkke la sëriñ tubaa seexul xaddim doon yónnee ba tax na maam cheikh anta mbàkke foboon na ku ñuy wax sëriñ njoogu njaay féetale kook seexul xaddim ba heure bu ko seexul xaddim soxlaa mën a woolu njoogu njaay moom mu woolu maam cheikh anta mbàkke ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim jógee ci dëkk bi nag di daaru marnaan ci bëccëgu gaawu fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmm ci atum 1321 ci gàddaay gi ba nim eggee ci bëccëgu ñaar fukki fan ak benn ci weeru gàmm ci atum atum 1321 ci gàddaay gi ba fanweeri fan ya nag ci weeru gàmmu ci atum 1321 ci gàddaay gi la fa doog a jóge nag dem nag ci dëkk bi nag di dagana doog a jóge dagana nag dem gànnaar bi sëriñ tubaa seexul xadiim nekkee nag ci dëkk boobu nag di ndar woolu woon na maam cheikh anta mbàkke ba binduloo woon ko ab lettre ci kër googu mu daloon di kër yenn yoroo ngir di ko wax ni ginnaaw googu ñu ko ginnaaw dem daaru marnaan dal ñëkkul woon nag lu ko neex lettre ba maam anta mbàkke moo ko jébbal gouverneur bi gouverneur bi tim ngir mu jébbal ko seexul xaddim seexul xaddim sëriñ Mor Faty Touré la yónni ngir mu jox ko maam Ceerno a Faty Mbàkke ndaamal daaru ginnaaw bi nag sëriñ Tuubaa seexul xaddim bàyyi ko na ndar nag dem nag ci dëkk bii nag di dagana bi mu nekkee dagana nag maam Cheikh Anta Mbàkke itam am na ñu ko booleeloon ngir bépp yitte bu seexul xaddim soxla mu mën leen koo yónni ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ Moodu Njaay Jóob bokkoon sax bi maam Cheikh Anta di dem Gabon di wuy ji xaadim rasul moom la àndaloon ak ku ñuy wax sëriñ rasul ak ku ñuy wax sëriñ Modou Guèye Karosa ñett ñi nag la maam Cheikh Anta Mbacke jébbaloon xaadim rasul ci diggante ndar ba gànnaar ginnaaw bu seexul xaadim demee gànnaar nag maam Cheikh Anta Mbacke daana fa ba noppi nag day dellusiwaat ci dëkk dem di ziyaara ji magam ji xaadim rasul ginnaaw ca yéen jolof njaareem njaareem googu itam maam Cheikh Anta Mbacke daana fa dem lu bare bari di fekki magam ja xaadim rasul ba tax na sax goroon am na fa ay quartier foofu ci njaareem ñu mën faa ràññee fa ñuy wax kër Cheikh Anta ci njaareem ak quartier bii ñuy wax Paris ci njaareem Paris googu maam Cheikh Anta Mbàkke moo ko goroon amoon fa kër gu rafet tudde ko Paris mu wéy nag des nag ci ndigalul magam xaadim rasuul nekkitim nag ku yéeme nekkitim nag ku tabe nekkitim nag borom alal nag ndax Sëriñ Tubaa Seexul Xaadim kat moo ko defal ngërëm ak dërëm dërëm ngërëm googu mu amoon nag taxoon na ci nekkinam lu na itam ci nekkinam nag daaru salaam googu ko magam dël di wéyee ci nag li di ndigalul magam ba ci atum bi invité ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ak ngan itam ci ndakaaru ci ngan googa ba fa xaadim rasul di dem yóbbaale na rakkam ji nag di maam cheikh anta mbàkke ak doomam ja nag di cheikh mamadou moustapha mbàkke ginnaaw buñ jógee ndakaaru nag ca ngan nga sëriñ tubaa seexul xaddim itam gana ji waat na nag kii di maam cheikh anta mbàkke nag ci dëkk boobu nag di gaawaan ci diiru ñetti fan yum fa am jëmm ji nag di maam cheikh anta mbàkke am na tawféexi sëriñ tubaa seexul xaddim gana ji ko ñaari ñaari yoon benn bi moo nekkoon daaru salaam bi ci desiti moo nekkoon gaawaan loola tam taxoon na mu nekk nag ku tabee ku yéeme ba tax na lim am du ko boolee kenn moo tax itam bari na nag ci kilifa yoonu murid wi maam Cheikh Anta Mbàkke taxawu na leen lool lépp loo xam ne nii bu ko defee itam mu may ko ngërëm itam ci magam itam def na ko bëgg googu mu bëggoon magam di xaadim rasul cofeel googu mu amoon ci magam di xaadim rasul loola itam taxoon na xaadim rasul mi magam itam yëg loolu ba tax na itam bindoon na lettre maam Cheikh Anta Mbàkke soo demee ca lettre ba ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul xadim mi ngi wax maam Cheikh Anta Mbacke ginnaaw bu mu ko nuyoo ba noppi mu ngi koy wax murit saadex bi di ko wax ne yow ku ma bëgg nga ku dëggu nga ci liggéey bi nga xam ni yaa ngi koy def nag ngir man loolu moo tax na nga ràññeeku ci lool ba na nag am na feebar nag bu la waroon a dal wala nattu nag bu la waroon a dal waaye suñ borom sukkandiku na ci liggéey boobu nga may liggéeyal ba teggil la nag loolu di feebar bi feebar boobu nag bu daloon ci sa kaw dana la tiis lool dana metti lool ñi ngay àndal dana metti lool say mbokk bi nga am na ngir liggéeyal ma moo tax nag suñ borom kon nag teggil la nag feebar boobu ñu teelu lettre boobu seexul xaddim bindoon maam cheikh anta mbàkke di rakkam i'lam an allaha tabaraka wa taala sarafa anka shay'an la wasala ilayka lamma ahbabta shay'an wa sababu insirafihi kawnuka sadiqan fi xidmati sarafa anka shay'an la wasala ilayka lamma ahbabta shay'an shay'u allazi kaada yubki kulla man ahabbaka min annaas lawla qawluhum sudurul ahrar quburul asrar la qultu laka qawlan laa tazaalu tatafakkaru fihi abadan wasalaam ginnaaw lettre boobu ngeen déggoon sëriñ tuuba seexul xaddim bind ko kii di maam cheikh anta mbàkke di ko wax feebar bu ko waroon a dal wala natt bu ko waroon a dal te liggéeyal bi mu koy liggéeyal moo tax mu fànqal ko ko maam cheikh anta itam bindaatoon na lettre sëriñ tuuba seexul xaddim di ko wax ne sa xasida yi de muul naa leen wala defaral naa la ko daal ba mu gën a muxtaare loolee itam sëriñ tuuba seexul xaddim tontuwaatoon na maam cheikh anta mbàkke ci lettre itam naa lool da ci li nga ma defal te sama xol sedd na ci lool ndax itam jëf ji nga jëf kawe na lool sama njortu liggéey boobee nag tuutul ci man moo tax itam suñ boroom dana la fay sant googee mu ko doon santaat nag nañ teewlu leetaru tontub seexul xaddim ginnaaw bu ko maam Cheikh Anta Mbàkke bindee leetar di ko yëgal ne muulal naa la xasida yi wala muul naa lenn ci xasida yi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu qad wasalat al kutubu ilayna maqbula mardiya ladayna fa juziita xayran tatamanna bihi jumlatan min amsaalik an law faalu misla ma faalta waalam annaka fajatani fajata surur wallaha tabaraka wa taala asalu an yafjaaka fajatan waqad wajadani xaamilu kutub aw xaamilu kitaab mustaxila lima yurdi allah tabaraka wa taala wa talabtu minhu taala ma talabtu laka liggéey boobu ci la sax di liggéeyal magam ji sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba ni magam ji génnee àdduna ci atum 1927 magam ji nag di génn àdduna di xaadim rasul joxoon na ndigal nag rakkam ji di maam Cheikh Anta Mbacke ngir mu dem gor nag ay dëkk ba tax na nag sanc na ay dëkk yi dëkk yi dëkk am na itam ay këri këri këri itam ci biir réew mi ñu mën cee ràññee dëkk bu ñuy wax Sanjara am na dëkk bu ñuy wax itam Sàqami am na dëkk bu ñuy wax Ndaak am na dëkk bu ñuy wax Ngaan Gaawaan mi ngi ci Kaolack ak dëkk bii ko magam dëloon di Daaru Salaam goraatoon na itam dëkk bu ñuy wax Gaawaan nekk fii ci Mbacke Bawal goraatoon na itam beneen Gaawaan nekk fële itam ci département bu Bambey ak ñaaxeen ak faneen ak faneen ak faneen fa mu goroon waaye maam Cheikh Anta Mbàkke itam ni mu baree woon ay dëkk yooyu itam ni la baree woon nag ay kër itam nag yu mu amoon ci biir réew mi amoon na kër itam ci capital bu Sénégal di Ndar Géej amoon na kër itam ci dëkk bu mag bii di Ndakaaru dëkk bii ñu tuddee Rufisque itam amoon na fa kër moom maam Cheikh Anta Mbàkke dëkk bii di Bargny itam maam Cheikh Anta Mbàkke amoon na fa kër dëkk bii di Pire itam maam Cheikh Anta Mbàkke amoon na fa kër biir Thiès itam amoon na fa kër département bu Tiwaawoon ci biir Tiwaawoon itam maam Cheikh Anta Mbàkke amoon na na fa kër dëkk bii di xombal itam amoon na fa kër dëkk bii di Touba Toul itam amoon na fa kër maam Cheikh Anta Mbacke itam amoon na kër ci dëkk bii nag di mi dëkk bu ñuy wax Sàngara itam amoon na fa kër dëkk bu ñuy wax Bambulu ci wetu dëkk bii itam di Sokone itam maam Cheikh Anta Mbacke amoon na fa kër ak dëkk bii nag di Mbacke Bawal kër gi mu amoon ci dëkk bii di Mbacke Bawal moo tolloog tribunalu Mbacke Bawal bi ak yeneen nag yeneen i kër nag yu maam Cheikh Anta Mbacke amoon ci réew mi ndax dëkk yooyu nag la nekkoon ak këram yooyu di yar di jàng ak di jàngale comme nag ni ko yoonu murit baaxoo nag di defee ba tax na maam Cheikh Anta Mbàkke nag bari nañu mu defar lool ci ëttub ku baax ci sëriñ Tubaa Seexul Xadiim ba tax ni ñu tudde ay cheikh itam am na ko ñu mën cee ràññee ko ñuy wax sëriñ Ibrahima Dia sëriñ El Hadji Mandiaye Diop sëriñ Mor Fati Touré nekkoon jarbaatam ak ku ñuy wax sëriñ lay Layfu Silla sëriñ Ma Silla Ndaak ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu maam Cheikh defar ndax xam naa ku bëgg lim ku maam defar wala mu cheikh seexal la daa juum waaye ci gàttal daal ñi mu seexal macha allah mu wéy nag nekk ci ay dëkkam di yar di jàng ak di jàngale ànd ak nag ñi ko xaadim rasuul booleen ngir liggéey ak ñi ko topp nag ngir xaadim rasuul ngir liggéey ba ni sëriñ tubaa seexul xaadim génnee àdduna ci atum 1927 mu jël léppam nag jox doomam ma cheikh mamadul moustapha mbàkke di ko xoolee nag waa juróom wa xaadim rasuul ak magam ja ba ci atum 1928 mu dem nag màkkatal mukarrama bokkitim nag ci doomu aadama yu njëkk itim ci yoonu murit itim mook sëriñ mbàkke buso ak kii di cheikh mamadul faadal mbàkke ak ñu takkoo takku nag ci yoonu murit wi aj gi ñu ngi jóge sénégal ci bëccëgug le 7 mars 1928 ñi ngi ñibbisi ci le 28 juin 1928 aj googu nag ginnaaw buñ ci jógee nag ba ñibbisi kii di cheikh mamadul faadal mbàkke nag dafa wéyoon nag des nag ci dëkk boobu ko xaadim rasul gorloo woon dindindi sëriñ mbàkke buso nag wéy nag des nag ci dëkk boobu mu goroon itim nag di géde maam cheikh dëkk bii xaadim rasul goroon te féetale woon ko fi di daaru salaam ab diir bu néew nag la def nag ci dëkk bi nag di daaru salaam amal nag li ñu tuddee ab tournée nag ci biir réew mi tournée boobu nag moo amaloon ci biir réew mi nag ci la ko histoire bi ko yóbbu ségu soqi ko wala bokk na ci histoire bi ko yóbbu ségu soqi ko ndax xam ngeen ne maam Cheikh Anta Mbacke borom dërëm nag ak ngërëm la woon kon ku bari le woon nag lii di alal la ba tax na alal jooju nag mu amoon nag jaaxaloon na nag lii di nasaraan bi boole koog nag mu nekk na xaritu ngalandu juuf te ngalandu juuf Diouf nag doon na dem élection nag ci at moomu di atum 1928 jàpp 1929 ak député bii nag di Blaise Diagne waaye comme bi campagne bi door nag dafa tombeek maam Cheikh Anta Mbacke nag dem nag ci dëkk bii nag di màkkatal mu karama nag aji te maam Cheikh Anta Mbacke bi muy dem màkkatal mu karama lépp loo xam ne nii nag lislaam sant na ko nit mooy sooy dem fenn dénkaaneel sa ginnaaw nooy itam nag ni la ko defee woon nag ci jarbaatam bi nag di Serigne Mor Fati Touré di ko wax nag bépp alal nag bu mu am nag ci biir mi ak fu mu nekk ñu nañ ne alal jooju nag keroog bi ko maam Cheikh Anta Mbacke di wax nag kii di Serigne Mor Faty Touré di ko wax ne bërëb sàngam ak bërëb sàngam ak bërëb sàngam am naa fa alal ndax boobakat banque amul ci bitig yi ak naar yi rek la ñuy def ay garantie ak ñi nga xam ne nii nag yow mi am sa alal nag wóolu nga leen kon bépp barab nag bu maam Cheikh Anta nag amoon alal nag waxoon na ko jarbaatam bii nag di Serigne Mor Faty Touré ngir di ko xamal na ne nag kooka nag am na lum yoreel maam Cheikh Anta Mbacke ginnaaw bu maam Cheikh Anta Mbacke nag demee màkkatal mu karama nag ngalandu nag doon wër na xaalis bu mu campagne waaye amu ko woon ñëwoon na nag ci jarbaatu maam Cheikh Anta Mbacke bi na di Serigne Mor Fati ture di ko wax ne maam Cheikh Anta Mbacke nee na deux cent mille ya nekk ca bërëb sàngam nag nga jox ma ko xaalis boobee ko Serigne Mor Fati ture joxoon ci la ngalandu nag defoon campagne bi waaye ci biir élection yooyu nag Blaise jaañ nag moo mujjoon gañe nag kii di ngalandu ginnaaw bu Blaise jaañ gañee nag kii di ngalandu nag ba noppi ubbi woon na nag li ñu tudde ay audit ngir nag di xool nag ngalandu nag fan la jëlee nag xaalis bu mu doon xeexee ak ginnaaw bi nag lañ topp xaalis ba nag ba xam ne daal ci kontu maam Cheikh Anta Mbacke nag la jógee te loola itam nag beles nag am na lu mu ci jàppaloon maam Cheikh Anta Mbacke boole koog nag maam Anta Mbacke nag ñibbisi nag lii di màkkatal mu karama amal nag lii di ab tournée nag ci biir réew mi ci la wër a réew mi nag ba dem nag ci dëkk bi nag di bambulu bambulu nag mi ngi ci wetu dëkk bii nag di sookoon foofu itam nag maam Cheikh Anta Mbacke nag amoon na fa kër ginnaaw bu mu eggee nag ci dëkk boobu nag di bambulu la waa bi nag yëgoon ne nag rakku ku baax ki Serigne Touba Cheikhoul mi ziyaare si ko di ko wax na nag réew moomu nag di Gàmbi néew na lool nag lu fa kilifa yi ñëw te bu ñu sañoon nag comme maam Cheikh Anta Mbàkke nag moom mi ngi fi wala fii mu nekk nag soriwul nag dara nag di Gàmbi di bàmbulu bu ñu sañoon nag mu jàll si foofu nag ñëw ziyaare si leen ñoom itam nag ñu mën a nag barkeelu nag ci rakku ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim maam Cheikh Anta Mbàkke itam nanguloon na leen seen ziyaar boobu ginnaaw bu mu jógee nag ci dëkk boobu nag di bàmbulu bëtt na nag frontière yi nag dem nag ci réew moomu nag di Gàmbi di gouverneur bu Gambie yëgoon na ne nag maam Cheikh Anta Mbacke nag ngi nag ci suufam invité woon na nag kii di maam Cheikh Anta Mbacke ak ngan am na nag ñu wax ne nag ab la ginnaaw bu maam Cheikh Anta Mbacke nag wuy jee gouverneur bi nag ci invitation boobu nag mu amaloon nag moom jógewaat na nag ci réew moomu nag di Gambie delsiwaat nag ci réew mi nag di Sénégal ginnaaw bu mu egsee Sénégal nag ba delsiwaat nag ci kër gi mu amoon nag ci Mbacke Bawal ci wetu tribunal bu Mbacke Bawal tombeek nag mu nekk nag lii di weeru koor ci biir weeru koor woowu nag lañ arrêté maam Cheikh Anta Mbàkke kon maam Cheikh Anta Mbàkke nag ñi ngi ko arrêté nag ci Mbàkke Bawal ci kër gii mu amoon nag ci wetu tribunal bu Mbàkke Bawal ci weeru koor heure ba nag moo nekkoon diggante dog ak lii di naafa ginnaaw buñ ko arrêté nag ci weeru koor wow ñi ngi ko yóbbu nag ci njaareem juróom-ñetti fan nag lañ ko denc foofu nag ci njaareem liñ doon toppe maam Cheikh Anta bokk na ci lan moo tax mu jox xaalis nag ngalandu nag ngir mu xeex nag Blaise Diagne bi ci lan moo tax mu dem Gambie te amul autorisation lu tax muy ñëw nag lii di fraude ak yeneen ak yeneen ak yeneen yuñ ko doon toppee xaalis bi mu yor itam fan la ko jëlee ci zaayir loolu lañ doon toppee maam Cheikh Anta Mbacke waaye li wér te wér mooy nguur daal bu bëggee teg loxo nit ala budda noo man di def itam dana wut ay pexe ba teg la loxo ci pexe yooyu nag la ñu def ba teg loxo maam Cheikh Anta Mbacke ci tuuma yooyu nag ñu ko tuuma juróom-ñetti fan nag lañ ko denc nag ci njaareem ginnaaw juróom-ñetti fan yi nag lañ ko yóbbu nag ci ndar géej juróom-ñetti nag lañ ko denc nag lañ génn benn décret nag maam Cheikh Anta Mbacke rek dañ koy yóbbu nag Ségou Ségou nag mu ngi nag ci Mali foofu nag la def ci atum 1929 ba atum 1934 ginnaaw buñ ko àttee ci ndar géej ne waroon ko yóbbu nag ci réew moomu donc di Ségou fukki at itam la waroon a tëdd nag ci Ségou waaye ginnaaw nag bu ngalandu gañee waatee Blaise Diagne ci la waat projet bi nag ci yoon ñu attee waat ko muy juróomi ati maam Cheikh Anta Mbacke yi waaye ca cosaan fukki at la waroon a tëdd keroog bi muy dem nag Ségou lii di autorité coloniale ko mu yóbbaale na ñenn nag ci waa këram moo tax waajuru sëriñ Moustapha Ceytu di soxna Faati Jóob kii di maam Cheikh Anta Mbàkke yóbbaale woon na ko ségu looloo waral doomu soxna Faati Jóob bii di soxna Daba Mbàkke ñu koy wooyee soxna Daba ségu waaye nag feeñiwul jamono ségu waaye nag li mu nekkoon ak soxna Faati Jóob ci ségu ak waajur wow di maam Cheikh Anta Mbàkke moo tax nag bi ñibbisee ségu ñu koy wooyee soxna Daba ségu ak taalibeem bi ñuy wax sëriñ Cheikh Thiam moom itam yóbbaale woon na ko nag ci réew moomu nag di Mali ci dëkk boobu nag di ségu di maam Cheikh Anta Mbàkke nekkee ci Ségou wala bi muy dem Ségou Blaise Diagne sax doon na sàkkoo gis na kii di maam Cheikh Anta Mbàkke waaye maam Cheikh Anta Mbàkke nag dafa gantu woon na ngir gis Blaise ca booba nag Serigne Cheikh Thiam mi àndoon ak maam Cheikh Anta Mbàkke ma woon ba tax na itam jëmm ji di maam am na lu woon ci Serigne Cheikh Thiam mi ci Blaise Diagne bi maam Cheikh nag nekkee nag ci dëkk boobu nag di Ségou bi muy ñibbisi nag ci Sénégal indaale na fa sax ay doomu aadama ndax nekkin gu mu nekkee woon foofu ci réew moomu nag di Mali ba tax na sax soo demee ci njabootu Serigne Moustapha Mbàkke mbàkke ceytu ndax waajuram moo demoon sëgudu soxna faatu jóob njaboot googu maam cheikh anta mbàkke indaale woon soo demee daa fa fekk ñenn seeni sët ñu baree bari nag ñu maam cheikh anta mbàkke indaale woon jëlee woon leen nag ci réew moomu nag di mali bi ñu ñëwee dañoo changé seeni sant ndax am nañu sant njaay ci njabootu sëriñ mustapha ceytu ca cosaan jara lañ santoon am na itim ñu fa sant faal waaye ca cosaan kulibali lañu santoon am na itim nag ñu fa sant jóob waaye ca cosaan traaware lañu santoon soo Moustapha Ceytu daa leen gis wala daa gis ku ne la sama maam Mali la jóge te maam Cheikh Anta Mbàkke moo ko indaale bi mu jógee Ségou maam Cheikh Anta Mbàkke nag mi ngi jóge Ségou ci atum 1934 nag delsiwaat nag ci biir réew mi keroog nag ñu koy jële Ségou nag di ko indiwaat ci biir réew mi ñu ngi ko wàccee nag ci dëkk bi nag di Gosaasa ginnaaw bu ñu bari yëgee ne nag maam Cheikh Anta Mbàkke nag tey nag lay delsiwaat ci réew mi te tey ji nag lay wàcc nag ci waaxu Bawal yi ñu bari nag demoon nañ ci gaar bu Jurbel nag doon fa xaari maam Cheikh nag bu nguur gi ragaloon moom moo waraloon nag ñu wàcce maam Cheikh Anta Mbàkke nag ci gaar bii nag di Gosaas Gosaas nag lañ ko jaarale nag indi ko nag ci dëkk bii nag di Daaru Salaam ci atum 1934 waaye nag ginnaaw bu ñu arrêté maam Cheikh Anta Mbàkke lu bare bare itam ci alalam itam yàqu na mu wéy nag nekk nag ci dëkk bii ko magam dëloon di Daaru Salaam ba ni mu génnee àdduna ci atum 1941 lii di màggalu Daaru Salaam itam nag maam Cheikh Anta Mbàkke moo ko woote nag ci nekkinam ci atum 1939 kon menn at la ko màggal génn àdduna maam Cheikh Anta Mbacke itam nag mi ngi ko jàppoon nag ci ñaar fukki fan ci weer wi nag di weeru digg waaye xam ngeen ne ngan gi ñaar fukki fan la ci weeru korite la fa ku baax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim nag ñëwoon ci moom waaye ci 1903 ba 1939 kenn màggalu ko mu toll ci fan fanweeri at ak juróom yu kenn màggalul màggalug daaru salaam gi ginnaaw bu maam Cheikh Anta nag jógee Ségou la tàmbaliwaat nag màggal gi wala nag la tàmbali nag lii màggal gi lettre ci ñenn nag ci mag ñu fi nekkoon ci lañ ko xamale ñaar fukki fan la ci weeru digg ginnaaw bu mu màggalee màggal googu nag ci bis boobu nag di ñaar fukki fan ci weeru digg ca déwén sa nag lii nag di màggal gi indiwoon woon na nag ak werantee ci ñaar fukki fan la ci weeru korite wala ci ñaar fukki fan la ci weeru digg am na nag ñu baree bari ñu wax ne nag maam Cheikh Anta Mbacke nag ne woon na nag bu déwénee nag dana ko soppi waaye laataa nag at may delsi la tëdd nag lii di feebar ba màggal googu sax mujj ko màggal muy ca fan yu njëkk yee nag la génn àdduna waaye seexul xaddim ñaar fukki fan fani korite la ñëwoon daaru salaam njaboot gi nag ginnaaw bu maam cheikh anta mbàkke génnee àdduna nag lañ wéyal bis boobu di ñaar fukki fan ci weeru digg kon lii moo waral ñuy màggal màggalug daaru salaam ñaar fukki fan yi digg waaye bis ba fa seexul xaddim ñëwoon ñaar fukki fan yi korite la ci atum 1903 maam cheikh anta mbàkke ko amoon relation la ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tuubaa cheikhul xaddim ñu mën cee ràññee ñaar ñoo bokk Mamor Anta Sali Mbàkke te ñoom ñaar itam seen waajuroo Mamor Anta Sali Mbàkke joxandoon na leen woon nag jàngalekatu alxuraan bi ñu tudd Sëriñ Ñang kóllëre googu itam tax na kii di maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru tudde na rakkam ji di doom di Sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ku amoon kóllëre la ak magam Mamor Jaara ba tax na tudde na ñett ñetti yoon doom maam moor jaara rakkam sëriñ bàll coro itam tudde na ko doom rakkam sëriñ cheikh sa mbàkke mi nga xam ne ni sëriñ tubaa seexul xaddim moo leen boole woon tudde na itam magam ji di maam cheikh anta mbàkke doom rakkam sëriñ aafiya mbàkke itam tudde na maam cheikh doom sëriñ musaa ndooy bu jokkul tàbbi moom itam ko amoon kóllëre la ak kii di maam cheikh anta mbàkke ba tax na maam cheikh anta mbàkke itam daana dem nag ci dëkk boobu di jokkul tàbbi di seeti sëriñ musaa ndooy sëriñ mansuur jaw bokkoon Tuubaa Seexul Xaddiim ko amoon kóllëre la ak maam Cheikh Anta Mbàkke ba tax na bind na ay way sax jagleel ko jëmm jooju di maam Cheikh Anta Mbàkke ndax boo demee ci way yi Sëriñ Mansuur Jaw bind jagleel ko maam Cheikh Anta Mbàkke mi ngi wax ne bi mu dëkkee ci dëkk bu sell bi di Tuubaa bu maam Cheikh Anta Mbàkke masaa ñëw Tuubaa di seet si ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim këram lay dal loola itam tax na nag kii di Sëriñ Mansuur Jaw bind ci ay way ñu teewlu way ya abki ala bu'di Tuubaa لهفة نفسي على فقد نزول خيا رنا زداري زائريه لله آه على فقد عصم البشر رؤيتنا فشيخ أنت أمير عارف الله مع الكرام الرفيق باب مسكننا فوق الجواد شبه خادم الله Cheikh Moussa Ka bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim ko amun kóllëre la ak maam Cheikh Anta Mbacke ba tax na bi maam Cheikh Anta Mbacke génne àdduna defal na ko am marché bu yaatoo yaatu ca biir marché ba nag mag ñuy nettali bépp jaar jaaru maam cheikh anta mbàkke ku ñuy wax na bu buso daaro ku amoon kóllëre la ak maam cheikh anta mbàkke ku nawoon itam maam cheikh anta mbàkke la ba tax na bi ñu arrêté maam cheikh anta ci dëkk boobu di ndar soloon na dàllam dem seeti maam cheikh anta mbàkke seeti boobu mu seeti woon maam cheikh anta mbàkke ci dëkk boobu di ndar géej maam cheikh anta mbàkke joxoon na ko fa ay dàll ngir di ko wax nag mu barkeeloo ko ginnaaw bu maam cheikh anta mbàkke nag jógee ségu ba delsiwaat nag ci réew mi ba tey nag mi ngi wéel ak kóllëreem ak maam cheikh anta mbàkke bindoon na lettre maam cheikh anta mbàkke moom sëriñ ceerno buso daaro soo demee ci lettre bi mu bindoon maam cheikh anta mbàkke moom sëriñ ceerno buso daaro ma ngay wax ca biir lettre ba ginnaaw bu mu nuyoo maam cheikh anta mbàkke ma ngi koy xamal ne nag jamono ji nag mi ngi jàng nag lii di xam-xam waaye bu dul woon nag jàng gi muy jàng xam-xam moom sëriñ ceerno buso daaro du tàggoog maam cheikh anta mbàkke ci diirub dundam ma ngay xamal maam cheikh anta ci lettre bi mu ko bind mi ngi koy wax ni guddik tey gi tombeeg muy guddik laylatul xadar guddik tey gi nag laa fas yéenee jóge nag fii ma doon jànge nag lii di xam-xam su ma fi jógee nag gede nag laa jëm waaye su ma demee gede nag fa yéene wu faa jóge nag ci diirub nag li des ci sama dund ba tey ci biir lettre boobu nag na bu sa Daaro mi ngi xamal maam Cheikh Anta Mbàkke di ko wax ne nag dégg naa ne nag dangaa tuxu nag ci sa kër gi nga amoon nag ci ndakaaru waaye nag maa ngi lay ñeewantu bu baax a baax a baax ci at yi nga am ak mag gi nga nekk waaye itam nag maa ngi lay ñaanal nag foofu nag ci ndakaaru nag suñ borom fekk la fi ak jàmm ak xéewal ci diirum nag li ngay dund kóllër gi ma séq ak yow na ak cofeel gi ma am ci yow na nga sàmmal ma ko ñu teewlu lettre bi sëriñ Ceerno Buso Daaro bindoon maam Cheikh Anta Mbàkke ngiru kóllëre aoudu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim fa min ibni daifin walxaqiri alxafifi alfaqir ila lutfi mawlahu latif akmalu salaami wa atyabu alkalaami ila al abi wa cheikh alhumaam waalalam ala alxaas walaam alxaaji Cheikh Anta Mbàkke fi daari salaam alchahiri ala sairi sawaadiyiina walbayaadiyiina الأصليين الفرنسيين بالحاج سيد المختار مكي ريان المسك والزعفران والعين أطعمنا الله وإياكم عن مكائد اللعين أما بعد نعلمك بأننا جميعا على أوفر الخير والميل فإن كنتم كما كنا حمدا وشكرا لله الحميد على موافقة المرغوب مع سؤالي على عافيتك وكيفية الجسد والهرم لأن الهرم كافية سقمها مع أني أستجد العهد القديم على ما baynana min almawaddati alkasira walawla taallum lama aqamtu an dalik walakin laqad aaqani an itmaami ma anwihi bi sohbati iyaak wa anna taalluma على ما سيصلح أعمالنا واجب علينا فالآن أريد الانصراف من ها هنا ليلة القدرية القابلة إلى أوطاننا جدش فلست بذاهب فيما نويته من بقية عمري وفي الأيام الماضية أخبرت بمجيئك دكار وخفت من جسد مرضك مرضا لضعف القوة وكيف وكيف لا يصيبك مانع من الروح معك ولا تتناسى ابنك الغريب الحبيب على دعاء ما يصلح أحواله لأنني غريب ليس الغريب فوقه وليس العوز غير الله ودعائك المرجو من العذاب الأليم آمين والسلام ginnaaw sëriñ Ceerno Buso Daaro moomu ci lettre boobu mu bindoon maam Cheikh Anta Mbàkke sëriñ Ceerno Buso Daaro nag waajuróom wu jigéen sëriñ Buso bi Buso moo ko meññi sëriñ Moodu Gueye Jamooñ ko amoon kóllëre la ak maam Cheikh Anta Mbàkke ba tax na ci atum 1903 bi sëriñ Tuubaa xat dim di wuy ji mbaaxaan ci convocation boobu mu ko amaloon maam Cheikh Anta Mbàkke ak sëriñ Modou Gueye Jamooñ la boole woon yónni sëriñ Daam Abdourahmane Lo ko amoon kóllëre la ak maam Cheikh Anta Mbàkke ndax moo jàngal maam Cheikh Anta Mbàkke alxuraanul karim maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina itam kasaalika ko amoon kóllëre la ak maam Cheikh Anta Mbàkke sëriñ Modou Jama Ñang ko amoon kóllëre la ak maam Anta Mbàkke ba tax na jarbaatu maam Cheikh Anta Mbàkke bii ñuy wax soxna Faati Touré dëkkoo woon na ko Serigne Mbàkke Bousso bu Gédé ko amoon kóllëre la ak maam Cheikh Anta ba tax na ci atum 1928 bi ñuy dem Makkatal Mukarrama ñoo ànd te Serigne Mbàkke Bousso itam def na seede ci jàmbaar jooju di maam Cheikh Anta Mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi xam na ku bëgg lim ku maam Cheikh antambake Mbàkke amaloon kóllëre daa juum ci gàttal daal bépp mag bu mu ci ëttub ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadiim maam Cheikh Anta Mbàkke yoon ndax xaadim rasul dong nag la doon xool ci yow yow itam nag xaadim rasul dong nag nga doon xool ci moom njabootu ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaadim itam kasaalika ñu amoon kóllëre lañu ak seen waajur woowu di maam cheikh anta mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke dëkk bii di ñaaxeen maam cheikh anta mbàkke moo ko gor moo ko jébbal cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mouhamadul fadal mbàkke itam kasaalika ku amoon kóllëre la ak waajuróom wi di maam cheikh anta mbàkke ba tax na bi ñu arrêté maam cheikh anta mbàkke ci dëkk boobu di cheikh anta mbàkke ba tax na itam nag am na doom sax jum duppee maam cheikh anta mbàkke cheikh mohamadul bachir ibnu sëriñ tubaa cheikhul xaddim itam kasaalika ko amun kóllëre la ak waajuram wow di maam cheikh anta mbàkke sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ko amun kóllëre la ak waajuram wow di maam cheikh anta mbàkke ba tax na yoroon na doomu maam cheikh anta mbàkke bii ñuy wax soxna daba mbàkke gënoon njabootu xaadim rasul gi moo xam góor la ak jigéen ñépp itam maam cheikh anta mbàkke ku leen nawoon la te itam ku leen fonkoon la ñoom itam noonu lañ meloon ci seen waajur waajur woowu nag di maam Cheikh Anta Mbacke maam Cheikh Anta Mbacke nag am na ay tur yu takkoo takku nag yu ñu koy woowee wala yu ñuy woowee ay turandoom ñu ràññee ci tur yi ko waajuroom tudde di Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke am na ay turandoom nag yu ñuy wooyee Cheikh Gaawaan am na ay turandoom yu ñuy wooyee Sidi Gaawaan am na turandoom yu ñuy wooyee Sidi am na ay turandoom yu ñuy wooyee Muxtaar am na turandoom am na turandoom yu ñuy wooyee Cheikh am na turandoom yu ñuy wooyee Sidi ak turandoom yu ñuy wooyee maam Cheikh loolu mag ñu baree bari ñu toppoon xaadim rasul tudde nañ ko doom ba tax na yoonu murit siidi muxtaar yu bari wala siidi yi wala muxtaar ñu ci takkoo takku nag maam cheikh anta mbàkke lañ leen tuddee wala kañ leen tuddee maam cheikh anta lañ ko tudde maam cheikh anta mbàkke boroom dërëm ak ngërëm mi ngi génn àdduna bisub alxamis ñaari fan ci weer wi di weeru tamxarit ci atum 1360 ci gàddaay gi alxamis ñaari fan ci weer wi di weeru tamxarit ci atum 1360 ci gàddaay gi dëppoog muy jeudi 30 janvier 1941 jeudi di 30 janvier 1941 ci dëkk bii ko magam goroloon féetale woon ko fi di daaru salaam ci dëkk boobu la génnee àdduna ci feebar bu ko tëral ci bisub alxamis boobu di fanweeri fan ci weer wi di weeru janvier ci atu 1941 bi 22 heures jotee ci guddi ci heure boobu la doomu soxna Anta ba nag ak rakku ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim génn àdduna sëriñ Moor Faati Ture nekkoon jarbaatam moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci dëkk boobu ci dëkk boobu nag di daaru daaru salaam ngi ko denc nag ci bërëb boo xam ne ni bi sëriñ tubaa seexul xaadim ñëwee ci daaru salaam ci ngan gam fa amoon foofu nag la nekkoon ci bërëb boobu nag lañ denc maam cheikh anta mbàkke ngir firndeel na bisub alxamis di ñaari fan ci weer wi di weeru tamxarit ci atum 1360 la génn àdduna soo delloo ci mbindum sëriñ mouhamadou jóob dagana mi ngi martial kii di rakkam ja sëriñ afiya mbàkke ci biir marché ba muy martial rakku maam cheikh anta mbàkke bii di sëriñ afiya mbàkke mi ngi wax ne bisub talaata fanweeri fan ci weer wi di weeru tabaski ci atum 1359 ci la sëriñ Afia Mbacke génn àdduna heure ba moo nekkoon tàkkusaan kon talaata ci tàkkusaan la sëriñ Afia Mbacke génn àdduna bés set di àllarba ñu yendoo bëccëgug àllarba ga ba ca alxamis ca guddi ca fukki waxtu yee nag ba mu jotee la magu sëriñ Afia Mbacke bii génn àdduna di maam Cheikh Anta Mbacke sëriñ Mouhamadou Diop Dagana mi ngi wax na ci marché bi mu defal sëriñ Afia Mbacke te di ca tudd nag maam Cheikh Anta Mbacke mi ngi wax ne sëriñ Afia Mbacke mi rakku maam Anta Mbacke maam cheikh anta mbàkke ba nëga ni yëgul ne rakkam ja génn na àdduna rakkam ja di sëriñ aafiya mbàkke ba nëga ni itam yëgul ne magam ja génn na àdduna ndax ñoom ñaar ci fanweeri waxtu lañu rawante muy talaata ci takkusaan ak alxamis ci guddi te ñoom ñaar nag ñoo bokk benn waajur wu góor ak waajur wu jigéen muy soxna anta njaay ak mamor anta sali mbàkke ñoom ñaar seen génnuk àdduna mi mu yéemee ba nëga ni ñoom ñaar kenn yëgu ci na sa moroom génn na àdduna loola tax na bi sëriñ mohamadou diop ci sëriñ aafiya Mbàkke ma ngi ko cay tuddaale ñu teewlu marsiya bi bismillahi arrahmani arrahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi قال عبيد ربه محمد الأمين جوب مؤرخا للشيخين الشقيقين الصالحين رحم الله السلف وبارك في الخلق إمام جامع المباركة نام يوم الثلاثاء ضحوة دار السلام أمام طنطش وطوبى الصافية markazuhu ahmadu sheykhul aafiya wa umruhu saydun li kulli xayri fala yazal fi minnatin wa mayri amma shaqiquhu alkabiru alaalamu alsheykhu antaju almazaya alaylamu fanaama fi saniyati alshahri alrais aasirata alsaaati laylata alxamis wa umruhu waysun wa fi daari salaam maqbaduhu madfanuhu dayfa salaam wa baynama nawmayhima laamun sama ani min assaa'aati fiima rutuma lam ya'lam الثاني بنوم الأول نعم يفر بأمره المهول فالله يرحم جميع من سلف منهم وبالتالي ay xalifaam nag ñu la tëdde moom maam cheikh anta mbàkke boroom dërëm ak ngërëm sëriñ moodu maamun mbàkke nekkoon ab taawam moo ko wuutu ci atum 1941 ba atum 1969 ñaareelu xalifa maam cheikh anta mbàkke mooy ñuy wax elaaji tàkko mbàkke moo ko wuutu ci atum 1969 ba atum 1975 ñetteelu xalifa maam cheikh anta mbàkke mooy cheikh ibrahima mbàkke tam faye woon ko magam ja xaadim rasuul ñu gënoon koo xam ci cheikh ibrahima mbàkke ndar moo ko wuutu ci atum 1975 ba atum 1987 nekk nag ñetteelu xalifa maam Cheikh Anta Mbacke ñeenteelu xalifa maam Cheikh Anta Mbacke mooy kam faya magam ja maam Mor Jaara di Serigne Sam Mbacke moo ko wutu ci atum 1987 ba atum 1998 juróomeelu xalifa maam Cheikh Anta Mbacke mooy Serigne Moustapha Mbacke Ceytu moo ko wutu ci atum 1998 ba 2004 li ñu tudde nag doomu maam Cheikh Anta Mbacke yu góor yi jeex tàkk nag ci kaw suufa sët njëkk a wuutu maamam mooy ku ñuy sëriñ amidu mbàkke ibnu sëriñ muudu maamun mbàkke ibnu maam cheikh anta mbàkke moo ko wuutu ci 2004 ba 2009 ñaareelu sët bi wuutu maamam mooy sëriñ maam moor mbàkke ibnu sëriñ elaaji tàkko mbàkke sëriñ maam moor mbàkke mii nag sëriñ moor faati ture lañ ko fayee moo ko wuutu 2009 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñu boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu maamam boobu di maam cheikh anta mbàkke ak mbooleem njabootug maam cheikh anta mbàkke gi moo andi nag ñu koy xoole maam cheikh anta mbàkke di soxna daba mbàkke bintu maam cheikh anta mbàkke moom itam yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ndax kat ay doomam soxla nañ seen bàjjen maam cheikh anta mbàkke nag am na bis ñu koy fàttaliku muy ñaar fukki fan ci weeru digg bis boobu nag lañ jàpp na di ci fàttaliku maam cheikh anta mbàkke bis boobu nag maam cheikh anta mbàkke nag moo ko taxawaloon nag ki nekki nekkinam bis ba itam moo dëppoo wala bis ba itam ña ngi cay dàkk bis bi sëriñ tuubaa cheikhul xadim ñëwoon nag ci daaru salaam di ngan gém amoon ci boroom gaawaan maam cheikh anta am na yeneen bis nag yuñ koy fàttaliku muy li ñu tudde ay journée culturelle maam Cheikh Anta Mbàkke wala borom gaawaan ak itam ay bisi cant yuñ jagleel maam Cheikh Anta Mbàkke waaye bis bi gën a wér daal ci njabootug maam Cheikh Anta Mbàkke te njabootug maam Cheikh gépp di ko màggal mooy ñaar fukki fan ci weeru digg bis boobu nag la ñu méngaleeg bis bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ñëwoon ci Daaru Salaam ñuy ñaan ci rakku ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim kañ doon wooye borom dërëm ak ngërëm di maam Cheikh Anta Mbàkke yàlla nañu ko suñ borom fayal yokk ay leeram ci barkeem réew mi tim yàlla na ko borom saa